jërë ngeen jëf euh, mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 di ñu déglu yéen sunu mbokk auditeurs yi ak euh, sunu mbokk auditrices yi mbokk yi ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, seen émission pencum réew mi muy émission boo xam ne day am ci rajo réew mi FM samedi bu jot bu 15 jotee jàpp 16h ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawa Diallo mu nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Mansour Ndiaye. Mansour Ndiaye mi nga xam ne mooy porte parole national bu LDR yeesal moom la ñu fas yéene waxtaanal tey ci actualité actualité réew mi euh, Mansour Ndiaye euh, am nañu mbégte euh, invité la ci rajo réew mi FM. jërëjëf Abdou Khadre Seck maa ngi lay sant di la gërëm di la nuyu di nuyu waa rajo. réew mi FM yépp di nuyu. ñi ñuy déglu sénégalais yi ñuy déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew di la wax ne nag mbégte mi ci man la ci man la ëppee maa ngi nuyu militant wu LDR Yeesal yëpp. ak le président Modou Diagne Fada. Euh, ñuy nuyu Modou Diagne Fada bu baax a baax moo nekk tamit euh, directeur général bu euh, Sonacos. tout à léegi première question bi mooy yéen LDR Yeesal ay allié ngeen ci Benno Bokk Yaakaar maanaam ci coalition Benno Bokk Yaakaar si ngeen bokk. Euh, tey ñu baree baree bari euh, njortoon nañu ne président Macky Sall dina nekk candidat ci élection présidentielle 2024 keroog bi président ne du bokk ci joŋante yi ñu dëgmal yéen LDR yeesal lan moo ci seen gis-gis ak lan moo ci nekkoon seen réaction. Euh, jërëjëf Abdou Khadre loolu nekkoon moment bu am solo bu Sénégalais yëpp doon xaar. su ma juumalee foog naa le trois juillet la 2023 ci la def déclaration boobu euh, xamal sénégalais yi ne moom du bokk ci jongante 2024 yi pour ñuy xëccoo njiitu réew mi euh, ñun bi ñu ko yëgee euh, sunu parti réunir la parce que noonu la ñuy doxee sunu comité directeur dafa daje ci njiital moo Modou Diagne Fada ñu waxtaan ci ponk boobu mais comité directeur bi ña fa nekkoon ñëpp dañu rafetlu. taxawaay bi nga xam ne moom la président Macky Sall ndax li mu def moom lu tubaab di wax joindre l'acte à la parole maanaam ay waxam jëf ji méngoo na ak wax ji mu waxoon euh, at yi weesu maanaam du bokk ci ci élection yi. est-ce que loolu ngeen doon xaar. bon ñun euh, xaaruñu woon dara parce que ñun nous sommes des républicains. xaaruñu woon xaaruwul woon mu fonk kàddoom. Euh, non c'est-à-dire ñun ay républicain lañ laa wax. waaw mais Mansour ay républicain. nit ñi mais ndax xaaroon ngeen président tout à fait. tout à fait loolu loolu ñu ngi ko doon xaar mais position suñu parti li tax ma wax la loolu mooy ñun dañu mës a wax rek ne candidature président Macky Sall euh, ñi ànd ak moom bëgg mu nekk ko du ñoo koy euh, tranché ñi nekk ci ku gi te bëgguñ mu nekk ko du ñoo koy tranché. société civile bi wax aussi du ñoo koy tranché te wax ji ku nekk di xëcc sa boor du def lu dul exciter ay passion malsaine maanaam euh, yóbbu nit ñi foo xamante ne mën na indi jéyee ci réew mi ñun li ñu doon wax rek mooy dañuy xaar ba ba mu wax su waxee de toute façon lii mujjee moom euh, kuréel gii di conseil constitutionnel moo koy wax. d'accord mais li mu wax comme ni ma la ko waxee méngale jëfam ak kàddoom dañu ko rafetlu te loolu dafa baax ci politique Abdou Khadre ndax dafay xaw a nag tumuranke ci réew mi. waaw mais est-ce que yéen Modou Diagne Fada LDR yeesal. yéen a ngi doon xaar président Macky Sall respecté kàddoom ne duma bokk ci élection présidentielle 2024 bien avant discours ba ndax loolu yéen a ko doon xaar. Ah, waaw ma mën nañ ko xaar mën nañu ko xaar Abdou Khader parce que nag euh, ñun xamuñu aussi ci président Macky Sall peut-être euh, loo xamante ne si euh, safaan ba la ñun xamuñu loolu ci moom ànd nañu ak moom ci biir PDS ànd nañu ak moom pendant juróomi at. Euh, ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar jàpp nañ ne mënoon na mënoon na wax carrément li mu wax nii maanaam du ma bokk ci élection yi li ma waxoon ne damay travailler à approfondir la démocratie à renforcer la démocratie au Sénégal euh, da koy dëggal te loolu la def. d'accord euh, léegi bi président Macky Sall defee déclaration boobu dafa am benn reconfiguration politique boo xam ne bu radical bu am. Euh, dégg nañ ñu baree baree bare ci biir coalition benn Bokk Yaakaar ne ay candidat lañ mais euh, euh, li ci gën a fës mooy ñu nekk APR lañ gën a dégg lu waral loolu. ni nga ko gisee noonu lañu ko gisee sunu parti statué wul ci point boobu wax ci li ma lay wax sama avis personnel la man du lu ma rafetlu ndax ci liste bi président di déglu. mënoon na am ay kàngam yoo xamante ne si bokkuñ ci biir APR parce que nag coalition la te coalition bi coalition de sous coalition la ay kilifa ñoo ko ñoo ko ñoo ko seq Moustapha Niass ñëw ak si Siggil Sénégal euh, ñoom Aminata ngi Ndiaye ñëw ak Benno ak Tanor yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng Macky ñëw ak Macky 2012 Idrissa Seck fekk si leen Oumar Sarr ñëw Modou Diagne Fada ñëw mais moom ñëwul ak LDR Yeesal mais ñëw ak diisoo ànd ak ay parti ak ay mouvement euh, rafetoon na bu ñuy am short list maanaam cinq six ou sept personnes mu am ñoo xam ne ci parti alliés yi lañ bokk parce que nag allier yi am nañ taxawaay bu rafet ci fukki at ak ñaar yi nga xam ne moom la Macky Sall yore yore réew mi mais mais est-ce président dajale na coalition Benno Bokk Yaakaar ci ci ci point boobu ñu wax ci. Euh, dajale na leen. waaw léegi léegi Mansour comme dajale na leen confirmé nga loolu léegi xam nga wax APR ñoom Ablaye Daouda Diallo ñoom Amadou Ba ñoom Aly Ngouille Ndiaye ñoom Ablaye Diouf Sarr kenn ku nekk am na sañ-sañ ne man damaa bëgg a nekk candidat coalition Benno Bokk Yaakaar léegi ñoom ñenn ñi wane seen bëgg-bëgg est-ce que yéen ñi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. ndax wane ngeen seen bëgg-bëgg noonu comme ni ko ñeneen ñi wane. xam nga dañu nekk ci coalition boo xam ne ay parti politique ñoo ko ñoo ko seq parti politique yi ku nekk am nooy doxee ku nekk am say statu ak ay règlement intérieur Abdoulaye Diouf Sarr ni mu mu ne par exemple jóg ne moom candidat la te APR samp ko instance APR samp ko investir ko Modou Diagne Fada mënul doxalee noonu ñun LDR Yeesal du ñu doxalee noonu parce que nàmpataluñu ci loolu ci politique. mais bi ñu dajalee conférence des leaders nga xam waroon nañ toll ci lu war a mat ñaar téeméeri kilifa ñi yore parti ñi coalition président Macky Sall teg question wu élection présidentielle bi 2024. wane ne moom partem APR jox na ko carte blanche pour mu tànn ña fa woon ñi ci ëpp jox ko carte blanche ne ko koo tànn ñu ànd ci ñun taxawaay bi ñu taxawee c'est pas un secret c'est un secret de polichinelle nit ñi nit ñi nit ñi. yëg nañ ko nit ñi nañ ko. mooy dañ na ko ñun mënuñoo joxe carte blanche. yéen LDR Yeesal LDR Yeesal ak coalition Disso yëpp. bi Modou Diagne Fada jiite. ci présence su Modou Diagne Fada. ci présence su Modou Diagne Fada moom moo yëkkati kàddu. devant le président. sant président devant le président sant ko gërëm ko ci taxawaayam ak ànd bi pendant juróomi at ak bilan bi mu def. woon ko nag ne ko ci wàllu candidat bi en 2024 pour Benno man mënu ma la jox carte blanche ndax waxtaanaguma ak samay ñoñ. yaakaar naa ne loolu it taxawaay bu am solo la bu ñu war a rafetlu en tant que politique. parce que nit bu ñu la tànnee jiital la ne la yaa jiitu taxul yaa war di wax yaa xam yaa mën lépp ànd bi dafa war a nekk àndu nawle ànd bi dañ ko war a lal ci démocratie ànd bi dañ ko war a lal ci dëgg ak ci njub président Modou Diagne fa taxawaay boobu la taxaw keroog palais devant le président de la république. dellu si nag ci ñun. lu ko lu ko président Macky Sall tontu. ne ko Modou dégg naa li nga wax dinaa la recevoir ca suba ga xaarul sax ca suba ga mu woowaat ko recevoir ko à 20h ñoom ñaar ñu waxtaanaat donc ñu ngi waxtaan xëy na yow li nga wax nii ne liste bi juróom yi ñu ngi doon xaar am ñu ci bokk ci ay alliés ñu ngi waxtaan président Macky Sall mu ngi waxtaan ak waa partem mais mu ngi waxtaan ak parce que ñun tey option yi ñu def c'est très clair ñu wootee comité directeur suñu parti dafa am lu ñuy wax commission d'orientation stratégique COS ñoom ñooy xalaatal parti bi ci stratégie politique yu ñu def pour mën a conquérir pouvoir bi ma fàttali na ñun LDR Yeesal créé wuñ ko pour di gunge ay nit wala nekk ci ay coalition wala di wut ay poste sunu vocation ak Modou Diagne Fada mooy conquérir réew mi toog ci chaise bi président Macky Sall toog doxal sunu gis-gis. loolu ngir soppi nekkinu askan wi. loolu loolu mooy sunu mébét. commission bi ma lay wax bi mu xalaatee daal dina ñett yi moo fi ne soit parti bi samp mbër muy Modou Diagne Fada soit parti bi. pourquoi Modou Diagne Fada. non taxawal tuuti ma wax la ba ma yeggale. ci option yi. parti bi samp mbër. waaw Modou waaw wala parti bi. jàppale candidat bi Macky Sall di tànn Benno wala parti bi jàppale keneen koo xam ne nekkul benn ñett yi ñoo fi ne. bi ñu ko indee comité directeur nit ñi waxtaan nit ñi nag ne président Modou Diagne Fada doo ñu gën a gore comme da dem ci kanamu président Macky Sall ñëpp joxe seen kàddu yow nga ne doo ko joxee da ngay ñëw laaj ñu ñun delloo nañ la kàddu ki yaay suñu kilifa doy nga ñu. léegi tànnal ñu. mais yéen LDR yeesal. ndax benn Modou Diagne Fada rek moo fa man a nekk candidat wu euh, LDR Yeesal. Euh, suñu parti tëggee nañ ko noo xam ne tey bu ñu doon tànn candidature bureau politique moo koy def ak congrès d'investiture dañu am ay kuréel yoo xamante ne si ku bëgg a doon candidat day am fédération yu la parrainé man tey Mansour Ndiaye porte parole même su ma bëggoon doon candidat. te awma ay fédération département yu ko mat yu ma pare ne du ma mën a présenter sama candidature mais ku ko am Modou Diagne Fada may na la nga samp sa ndënd jàkkaarloo ak euh, ak moom ñun ay démocrate lañ xam nga suñu parti ci fippu la judd ak ci bañ yéen a ngi fàttaliku 2014 2015 biir PDS dañu ne nañ defaraat parti bi parce que depuis 1974 yow suivre nga ñu mhm. ñun ay réformateur lañ alors bi ñu ne nañu defaraat parti bi mbubu Ablaye Wade yaatu na yaatu boo xam ne benn nit mënu koo sol d'accord nañ Karim tey envergure bu mu am mën na nekk candidat parti bi mais ñun candidat lañ pour le secrétariat général pour gérer parti bi ñu bund xataa d'accord dàquñu mais parti bu judd ci loolu nag mais ma daaneel fa am na solo ci démocratie am na loo xam ne doo ko mën a nangu moo tax Modou Diagne Fada démocratie lay doxal ci biir parti bi. d'accord ku bëgg mën nga samp sa dund mais ñun jàpp nañ ne moom profil bu mu am. Mhm. carrure bu mu am jaar jaar bi mu am ci état. moom mooy le meilleur profil ci suñu parti pour ñu samp ko comme candidat. d'accord mais léegi une petite question rek bu gàtt est-ce que jàpp nga ne bis mën naa ñëw LDR Yeesal Modou Diagne Fada ànd ak Karim Wade. xam nga ñun ci politique Abdoulaye Wade moo ñu ko jàngal dàq ñu dara ñun on a dit jamais en politique mais nag on reste sur les principes c'est-à-dire les cohérences idéologiques les convergences programmatiques c'est-à-dire du ñu def loo xam ne ku ko dégg ne a wala jéppi nañ la c'est-à-dire tey l'opposition radicale qui est là qui prone un anti-système ñun dem en coalition ak ñoom parce que bokkuñu aussi vision politique il faut nit ñi tamit ñu ràññale xar yi ak bëy yi waxuñu ne ñoom baaxul de baaxuñu de waxuñu ñun ñoo gën mais cest dire ku nekk li nga gëm ne mooy jëmale réew mi kanam. nekk ci nga bàyyi keneen ki aussi li mu gëm ne moo gën ci réew mi mu nekk ci. Mm-hmm. moo tax tey Karim Wade c'est un libéral. Idrissa Seck c'est un libéral Macky Sall c'est un libéral euh, ceux qui sont candidats à la candidature de Benno et qui sont de l'APR c'est des libéraux ñun dàquñu sax même les social-démocrates c'est-à-dire le camp des républicains ceux qui sont prêts à défendre le modèle de république que nous avons ak la nation ñun mën nañ ànd ak liggéey ñun ñun diisoo lañ xam ñun waxtaan lañ xam ñun ñun ànd booloo lañ xam parce que nous sommes à l'ère des grands ensembles. loolu la ñuy wax dix heures nappkat yi dix heures sàmmkat yi. <laughs> Euh, Mansour euh, Mansour Ndiaye mbokk yi la invité ci rajo Réwmi FM mooy porte parole national bu LDR Yessal euh, Mansour. ba tey ci président Modou Diagne Fada ba léegi waxagul lu leer kon bon ba léegi waxagul lu leer loo xam ne yéen mën ngeen koo mën ngeen koo jàpp comme dafa taxaw ak président na ko. ñun joxuñu la carte blanche il faut ma dem diisoo. Mm-hmm. ak samay nit. Mm-hmm. bi mu diisoo ak yéen yéen ngeen tegal ko euh, ñetti. option léegi ñetti option yooyu ba léegi amagul benn option buñ bu ngeen si jëlagul. moom mu ngi waxtaan ba léegi. ak mu ngi mu ngi xalaat tamit. mu ngi xóotal xalaat yi di ko yaatal. nit koo xam ne la ku am une grande capacité d'écoute. xam nga ay nit bu la ay nit jiitalee. da ngay fexe bañ a juum moom moo koy faral di ñu ko wax parce que boo juumee ñi sa ginnaaw ñëpp juum donc paree pareegul ci xalaat yi mu ngi waxtaan ak président Macky Sall mais it ubbul beneen tëjul beneen bunt parce que ñun euh, ñun du ñu def politique boo xam ne dañuy làqatu ñun li ñu def on l'assume. Karim Wade woo na ko téléphone. kan moo jaay fa waaw waxtaan ak moom. ok Macky Sall recevoir na ko waxtaan na ak moom. am na ñeneen ñoo xam ne dañuy ñëw di seet si Modou Diagne Fada waxuñ ko pour ñëwal jàppale ñu. mais dañ naan ko yow lañ bëgg a sampu. ma daaneel Abdou Khadre. am na ñeneen ñoo xam ne ci biir réew mi nekkoon biir PDS génn fa sos tey seen parti nekk tamit biir PDS ba tey dañ koy woo ne ko ñun jàpp nañ ne yow ndoonay Ablaye Wade kenn gënu la ci yey ndoonay famille libérale kenn gënu la ci yey dañu bëgg ñu samp la. mais ci biir loolu yépp amagul dara luñ ci retenir. xam nga lan lañ ciy retenir ñun. ci biir waxtaan bi ku ñu ci wax loo xam ne sunu intérêt parti mu ngi ci ak l'intérêt supérieur de la nation ñaar yi rek moo ñu ñor. d'accord mais Mansour xam nga sànq euh, man yëgu woon sax ne euh, Karim Wade woon na Modou Diagne Fada mais maa ngi naan la bis mos naa ndax bis mën naa ñëw ngeen ànd ak euh, Karim Wade Karim Wade woo Modou Diagne Fada gi pour mu dellu si biir PDS la wala pour mu jàppale ko ci élection présidentielle 2024. ah Modou Diagne Fada nag rendre gul compte bureau politique parce que ñu ngi koy xaar mu ñëw bureau politique pour wax ñu lan la jëlee ci ñi muy waxtaanal. donc man loolu moom xam naa boo ko gisee nga ko koy nga ko koy nga ko koy laaj. waaw léegi mais lan moo tax ñu koy woo pour mu jàppale leen mel ni moom wul te mën a am programme laaj réew mi. déggoo li ma lax de ñetti mbir laa la dama ne la Macky la ngi waxtaan ak moom parce que tamit ñun mënuñu jàppale candidat bu ñu xamul xamaguñ ko makki di tànn bu tànnee koo xam ne ñun gëmuñ ko nag. ah loolu mën a nekk loolu benn la waxuñ la ne euh, moom ak Karim moom day dem jàppale Karim wala Karim da koy jàppale. mais Karim mën na woo Abdoulaye kii euh, Modou Diagne Fada ne ko man mënumaa ñëw te kër bàyyi gi wala famille libérale bi comme man mënumaa ñëw te Macky bàyyi na yow lañ ci yaakaar Macky Modou Diagne Fada war na mën a nekk candidat wu famille libérale bi. boo xam ne candidat wu PDS candidat wu famille bi. famille libérale Macky mun na ko nekk ci la bokk. parce que moom Macky Sall ñu ngi waxtaan. mais yéen est-ce que bëggu leen fee créer coalition famille libérale. Euh, dàq ñu ko parce que ñun. ci sunu jaar-jaar politique dañu mës a gëm que famille libérale bi dañu war a daje parce que nag li li li njaboot gi di bëri bëri politique bi bëri jax di riir famille politique gu Senghor moo fi ne ak famille politique gu Abdoulaye Wade bon y a aussi qui se réclament héritier de Cheikh Anta Diop mais les grandes familles politiques fii famille yu euh, sengoor la ak famille yu Abdoulaye Wade tey ngeen yëg ko ngeen bañ ko yëg socialiste yi ñu ngi waxtaan ah. dëgg la ñoo ngi waxtaan. ñu ngi dajaloo it. waaw te pourtant ci biir ñoom ñoo ñu di waxtaan am na ci ñoo xam ne nee nañ Macky Sall jox nañ la carte blanche. xam nga loolu mooy joxe bopp rocc làmmiñ ñun nag midi la ñuy dox. li ñuy wax ci kanamu président lañ koy wax ñëpp di ko dégg li ñuy def bu paree dañ koy fësal ñëpp yow. diilu leen waxtaan non diiluñu parce que ñun suñu parti li ko laal gis nga devise suñu parti xam nga lan donc suñu engagement politique dañ ko def de telle sorte que les actes que nous posons soubassement bi éthique lay ne lu jub lu rafet intérêt réew mi li koy wund yëpp li koy waral finalité bi mooy ñu fexe ba yaakaar espoir dekki ci askan wi. d'accord mais Mansour su ma déggee nga wax ni en résumé man euh, dama see gisee ne yéen famille libérale yi euh, yéen a ngi waxtaan ci seen biir pour taxawal benn candidat. Euh, xam nga yow. Euh, Abdou Khadre yow da ngaa xaw a da nga xaw a doy waar nag man li ma la wax c'est très clair dama ne la. ay option la sunu parti jël sunu comité directeur. non jox ko président Modou Diagne Fada ne ko xalaatal ñu ci. option yooyu boo permettre Modou Diagne Fada muy waxtaan ak ku bokk ci famille libérale yaa xam ci ku jënga ne. Mhm. maanaam Idrissa Seck wala Karim Wade moo xam ci pouvoir nga ne maanaam Macky Sall ak ñam yi tànn moo xam keneen. moom daal jox nañ ko. carte blanche mu ngi xalaat mu ngi. réfléchir mais mais est-ce que Mansour Ndiaye. Macky Sall mën naa tànn kenn benn candidat boo xam ne yéen bu ngeen ci àndul yéen LDR yeesal ban ban taxawaay moom ngeen di am. la politique du c'est pas euh, une affaire d'enfant de cœur ñun nekkuñu ci affaire. sentiment émotion wala émotion wala yeneen nous dans la gestion de l'État. nous sommes dans les intérêts supérieurs de la nation ñun li ñu li ñu li ñu ñor mooy que askan wi jafe-jafe bi mu ne ñu dindi ko ci. kon man xam nga xam nga Modou Diagne Fada tey bu doon wut teraanga. Mhm. ah mën naa toog parce que am na lu mu dundee moom njabootam. li tax mu sos partem bi 2016 ba léegi juróom-ñaari at c'est pour fexe jafe-jafe yi nit ñi ne mu dindi ko loolu nag bala mu fay yegg fu ne mën na faa jaar ndax papa Abdoulaye Wade wut na ko ñaar fukki at ak juróom-benn. nit mën na ko def ñetti at nga am ko nit mën na ko def ñaar fukki at la ko xamuñu 2024 lay doon président xamuñu 2029 wala 2034 ah, mais li ñu bëgg ñun mooy un jour président Bour Diagne Fada avec sa vision bi nga xam ne mooy yeesal Sénégal nga xam ne tëgg nañ ko ci fànn yépp waaw ah, dina ñëw seen programme dina ñëw seen programme léegi Mansour kon lu mën a nekk la président Macky Sall tànn benn candidat pour coalition Benno Bokk Yaakaar yéen LDR yeesal ngeen lànk mais lu mën a nekk la Abdou Khadre. ok parce que xam nga lu tax su fekkonte ne loolu amul Abdou Khadre moom bu nañu jox ñu carte blanche ñu ne ko jox nañ la carte blanche dama la wax ne la ñaar mooy lal ku ñuy àndal ëllëg intérêt suñu parti ak intérêt supérieur de la nation. loolu intérêt askan wi. nu ngeen koy xamee rek su tànnee benn candidat. non yow tamit ñun xamante nañ bi candidat yi jógee wuñ Chine wala Japon fii ku ci ne xam nañ la xam li nga gëm li nga mën ak ni nga toll gis nga une mission bu ñu la ko dénkee yàlla sunu borom bi bi muy ñuy yónnee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci tamxarit la ñu nekk dafa jël ki nga xam ne mooy gën gi bindeef te ci ay jikko la ko la ko la ko la ko tànnee mu tabax société boo xam ne nag waxuma la sax wàllu wàllu diine rek bi ñu ko yónni mais dafa dafa dafa defar lépp ba tey ñi ko gëmul woon sax di ay philosophe ak ñeneen ñu ngi naan gëm nañ ne moom mooy modèle leader bi nga xam ne moo gën ci jamono yépp alors donc tey ñun mënuñu taxaw rek mel ni ñoo xam ne xamuñu dara ci politique ne Macky Sall ko ah ko tànn ñu ànd ak moom déedéet ki muy tànn day nekk koo xam ne ñun gëm nañ ne ban profil ban profil ngeen xaar non xam nga profil bi ñuy xaar c'est c'est le profil d'un homme d'état c'est le c'est le c'est le profil xam nga xam nga xam nga xam nga un homme d'état day nekk nit koo xam ne d'abord dafay am mesure day am le sens de la mesure du dox ci ay émotions xam un homme d'état dafay gëm l'état defendre ko day gëm république day gëm la nation république mooy li ñëpp bokk nga xam ni nga koy yore dans l'intérêt de tout le monde alors mais tànn boo xam ne tànnu affection la rek wala tànn yaa ma doy ta nga xam ne li nga koy dénk mënu ko yow sax mën nga yor sa njaboot ci sa biir kër am ku la ci gën a mhm. ki la ci gën a du moo ci gën mhm. alors ki ñuy tànn bu ñu doyee bu ñu doyee ñu xam ne kii euh, intérêt askan wi war na ko mën a mën a mën a régler maanaam am na li tubaab di wax l'étoffe et l'épaisseur les épaules suffisament larges pour supporter la charge mën nañ koo gunge parce que ñu ak ñoom ñoo ànd depuis cinq ans. léegi euh, est-ce que xalaat nga tamit Modou Diagne Fada nekk candidat Benno Bokk Yaakaar. Euh, du lu ma dàq parce que politique lu ne mën na am te it dama cee jàng ci wetu Modou Diagne Fada. ak Abdoulaye waa dëkk politique moom euh, du biir day xëy wasin loolu benn la ñaar aussi rapport de force la maanaam rien sa se donne tout s'arrache. d'accord mais yéen di euh, Mansour euh, ni ma la déggee nga wax ni tamit mooy bu président Macky Sall tànnee kenn même su ngeen si àndee day jar beneen waxtaan nag boo xam ne yéen lay doon seen diggante ak candidat bi tànn. yow nag journaliste nga waaye ko mën a politique nga waaw. yow. parce que xam nga tey président Macky Sall bu tànnee nit tànn Abdou Khadre ñu ne ko moo Abdou Khadre mi kat moom jaar-jaaram jikkoom seede yi am nañ yaakaar ne war na mën a porter les couleurs de Benno Bokk Yaakaar et de la mouvance présidentielle dinañ toog nag waxtaanaat ak moom. kandaar waaw. mu wax ñu dégg ñu nit ñu wax mu dégg parce que bul fàtte ñun bi ñuy ànd ak Macky Sall en 2018 dafa ñëw seet si Modou Diagne Fada di ko jaale woo ko ne ko dama bëgg ànd mais waxtaan nañ lu war a mat ñetti weer jàpp juróom-benn pour ànd moom. maanaam ñun woo ñu jox ñu poste ministre wala directeur taxul ñu ànd ak yow ci politique ñun ay privilège dugaluñu ci politique dafa am loo xam ne moom lañ gëm bu ñu waxtaanee ba gis ne kàddu yi tënku na ci loo xam ne méngoo na ak li ñu jëm li ñu gëm mën nañu ànd doxal ngir intérêt yi. intérêt askan bi d'accord léegi euh, bëgguma tudd benn candidat mais candidat yi ngay dégg ni ci presse ci mbedd meeg est-ce que jàpp nga ne am na si candidat boo xam ne bu ko Macky Sall tànnoon tey mën ngeen a ànd ak moom. Euh, xam nga man sama avis personnel yaakaar naa ne soxlawoo ko. non soxla naa sa avis personnel. avis yu avis yu LDR yeesal nga soxla avis yu. LDR yeesal bu fi comme bu mënul wax sa nga wax sa man daal ki ma doy ci politique. Hmm. Modou Diagne Fada la. donc tey ki ma la mën a wax ne la tey bu ko Macky Sall tànnoon ñun pare nañ pour topp ko Modou Diagne Fada la parce que ñun dañu boole suñu lépp suñuy déem ak suñuy buy ak Dakar jox ko. li ko waral it c'est pas parce que day sol mbaxana yu rafet côté yooyu daraa yu rafet. ay mm-hmm. costume yu rafet wala c'est pas parce que. Ah, waaw li ne di rafet wala wala doomu daaru la wala taalibi Serigne Touba mais c'est parce que dafa am jaar-jaar ci politique. c'est parce que dafa xeex. pour démocratie mm-hmm. Sénégal dafa xeex pour que Abdoulaye Wade. kenn du ko sàkkal pexe waaye mu bokk ci ay élection bu mën a jël réew mais mais Modou Diagne Fada euh, man politique am jaar-jaaram ci politique ak fi mu yaroo ci politique kenn du ko weddi mais dayo politique am moom euh, Mansour est-ce que wàññeekuwul lu bëree bëri dayo politique am euh, wàññeekuwul dayo politique am wàññeekuwul li ko waral mooy gis nga bi ñu fippoo ba ñu dàq ñu ñu génn PDS créé suñu parti 2016 lañu créé suñu parti bi ngeen defee provocation ba dàqale bi ñu 2000 loolu sa qualification la 2016 lañu créé parti bi 2017 matul sax at manqué na ay weer ñu dem élection législative te ragaluñ caa dem mu nekk nag élection législative yi gën a métti ci histoire élection législative Sénégal. Mm-hmm. ndax jamais ñu organiser élection 47 listes bokk ci ñeent fukki liste ak juróom-ñaar bañ ca bokkee xam moo lu Modou Diagne Fada jël. Mm-hmm. juróom-ñaar ñeent fukki list moo nekk ci ginnaaw. Mm-hmm. te juróom-ñaareel place bi mu jël juróom-benn yi ko jiitu ku ci ne da am kulo gunge. ku ci ne da am ku gunge Ousmane Sonko Madiaye Mbodj da koo gunge ak imam Mbaye Niang gunge ko ak partem ak ñeneen ak ñeneen Balde ñoom Girassi jiit gunge ko ak ñeneen ak ñeneen. yéen lu ngeen amoon. ñun on avait 33000 voix Sonko am 36000 voix Balde am 30 xaw ma ñaata voix parce que xam nga élection plus les listes sont nombreuses plus les candidats sont nombreux voix yi day éclater. Hmm. parce que ñeent fukki liste ak juróom-ñaar dafa ëpp. mais loolu wane ne na bu ñu doon tànn rek juróom-ñaari liste yi war a dem élection Modou Diagne Fada da ci war a bokk. sans coalition nag partem kese. mais tey bu ñu doon jël parti kese sans coalition juróomi parti yi gën a mag ci réew mi LDR Yeesal ci la bokk te élection yooyu Abdou Khadre bi ñu ciy dem ñeent fukki département ak juróom yi nekk ci Sénégal bu ci ne Modou Diagne Fada samp na fa député te loolu yombul ci politique. yombul huit yi ne ci diaspora yi fu ci ne samp na fa mbër loolu yombul ci politique ñetti liste rek ñoo ko amoon liste Macky Sall Bokk Yaakaar liste PDS ak liste Modou Diagne Fada. Sonko amatoon ko ak coalition. waaw mais mais d'accord mais mais Mansour Khalifa Sall ak Idriss Seck ànd nañ te amuñu ko. waaw mais Mansour. Euh, alors donc dayoo Modou Diagne Fada moom. ci politique dafay gën di yokk parce que deful lu koy wàññi defu ko te waxu ko. mais non am na question def ou wax question def wala mais est-ce que am na temps bi aussi après mën a installer fenn fu nekk am structure tey ak parti bi ndax am nañu temps dajee ci seen biir ñu ne kii moo jiite jeunes yi kii moo jiite cadres yi kii moo jiite femmes yi kii muy jiite euh, nangam nangam est-ce que jot boobu ak bi mu dikkee ci bennoo est-ce que jot boobu Modou Diagne Fada. nous avons le parti le plus structuré au Sénégal waxuma ko parce que fa laa bokk xam nga yaa wax structure parti bi gën a structuré ci Sénégal ñun la nekkatul parti socialiste nekkatul PDS bi ñu jógee ñun am nañ ko jiite suñuy ndaw dañuy yóbbu suñuy ndaw. mbuur sali tëj leen fa ñaari fan ñett di leen defal université yeesal di leen jàngal lan mooy yeesal Sénégal l'université du yeesal am nañ ko jiite suñuy jigéen Binta Ndiobou dañ ko investiroon sax pour mu doon député am nañ ko jiite suñuy sage Alassane si dëkk Thiaroye dëkk ko nekkoon PDS am nañ ko jiite suñuy jeune fii Diarratou Mangane dëkk Thiès am ko jiite le conseil consultatif des jeunes kenn buggul jiite woon jeune fii yu balde yi bàyyi ko ñëw ci ñun am nañ ko jiite suñuy cadre maa Anta Mbow di un grand cadre un docteur am nañ ku jiite suñuy étudiant di l' étudiant le plus influent à l'université ci syndicalisme di Doudou Diouf nga xam bi Macky Sall di ñëw université moom la étudiant yi jox ne ko waxal ñu am ku jiite suñuy jeune mbuur la dëkk caajaay amor yu xam na ko am ku jiite suñuy jeune di Mamadou Gueye alors ni ma ko déggee aussi parti la boo xam ne bu euh, bu bu transversal maanaam parti la boo xam ne Euh, damaa yaakaaroon ne Modou Diagne Fada comme dafa dëkk Darou Moussi rek parti la boo xam ne dañuy jël cadre yi dëkk Touba Darou Moussi jigéen ñi ki ko jiite dëkk Darou mais ni nga ko waxee nii euh, si Sénégal gi yépp boo xoolee. Yaareetu Mangane Thiès la dëkk. Mhm. jiite jigéen ñi. Mamadou duggee dëkk Dakar jiite jeunes yi maa anta dëkk Touba dëkk jiite cadre yi euh, Alassane Sy mu nga caaro yi jiite jiite sage yi Doudou Diouf mu nga dëkk mbuur Thiadiaye jiite étudiants yi kenn bëggul Saint-Louis la dëkk bokkoon ci Balde. sunu parti fépp la ne man mii di porte parole bi Guinguinéo laa dëkk jiite la département de Guinguinéo sunu parti foo dem kàngam nga fay fekk ab cadre koo xam ne def nañ lu ne pour jéem koo nangu ci Modou Diagne Fada mu taxaw ne Fada laa gëm wax ji nag dafa bëri riir mi bëri nit ñi ne ci réseaux sociaux ku ne di wax mais ñun ñu ngi liggéey ci suuf. d'accord parti bi chaque jour ay nit ñëw di di adhéré. d'accord jërëjëf euh, Massour Ndiaye euh, ñu fàttali ne mbokk yéen a ngi déglu rajo Réew mi FM seen émission pencum réew mi. muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h euh, tey ñu invité Mansour Ndiaye mi nekk porte parole national bu LDR Yeesal euh, Mansour. ñu wax ba tey ci li nga xam ne mooy coalition diisoo. Euh, man coalition diisoo bi sama xel def cee tey. coalition diisoo bi lu war a coalition diisoo bi. non xam nga coalition diisoo bi judduwul ginnaaw Macky Sall waxee ne du doon candidat. donc sa xel sax bu mu teey ne c'est pour samp Modou Diagne Fada bien que ñoom jox nañ ko carte blanche tey bu fekkoon ne waxtaanu Macky Sall ak Fada d'accord uñ diisoo pare na pour samp Modou Diagne Fada yeesal pare na pour samp Modou Diagne Fada Modou Diagne Fada nag mooy xam dina nangu wala du nangu parce que investiture dañ koy nangu mais li ma bëgg nga jàpp ci loolu mooy diisoo euh, bi ñuy dem ci Macky Sall diisoo lañ fa yóbbu yóbbuñ fa LDR yeesal ay parti yu bëri yoo xam ne ba ñu koy sos sax. ci début boobu moo la ko waxee peut-être di nga jaaxle Abdoulaye Balde ci la bokkoon. Hmm. ay Tall Sall ci la bokkoon. Cheikh Tidiane Gadio ci la bokkoon. donc coalition bu mag la woon te ñooñu ñëpp li ñu nekk ay kàngam mag Modou Diagne Fada peut-être ci ay at moom lañ jiital comme président de la coalition. loolu yàlla moo koy joxe cër boobu. ak jaar jaar ba léegi ay parti ñu ngi ci bien que Balde dafa demal boppam Gadio ak ak kii euh, ak euh, ay Tall Sall mais ba tey ay parti ak ay mouvement ñu ok donc coalition disso noonu la demee ci Macky Sall di ko jàppale ba nii tey. mais mais Modou Diagne Fada courage politique bi ma amoon ba léegi ndax am na ko. Euh, xam nga courage politique weesuwul mu dem xam nga xam nga président de la république mooy la xam nga président de la république nii Macky Sall du rek moom mooy président de la république. parce que njiit yàlla moo koy tànn jox la nguur nee nañ bu koy jël sax da koy bipp gis nga bu la ko joxee moo la koy téyeel bu koy jël da koy bipp moo tax président de la république du kese. boo mënee toog nag nit ñëpp toog wër leen ku nekk jël kàddu ne ko ah loo def doy nañu. Mm-hmm. yow nga ne ko ah man loolu duma la ko wax loolu courage politique la. courage politique moo taxoon en 2005 bi mu amee problème entre Wade ak Idrissa Seck ñu bëgg cee dugal ba ba génne ko ci gouvernement bi wàcce ko Daaru Musi dugal fa Thierno Lo mu samp waar wi dem élection am 80 000 voix. Mm-hmm. courage moom bu ñu koy wax ci Sénégal man gisuma homme politique bu ko ëppale Modou Diagne Fada. mais nag courage du saaga courage du taxaw di di di xasse courage du taxaw di fëgg dënn courage mooy boo waree wax nga wax soo bëggee wax noo kenn mën laa tax nga wax wii loolu mooy courage politique courage politique it mooy jafe-jafe sa gox jafe-jafe askan nga taxaw ci te loolu mu ngi ci ci mbir daara mu ngi ci ci mais mais mais yéen coalition diisoo kañ ngeen gëj a daje. coalition diisoo daje nañ semaine bi passé xam nga LDR yeesal moo daje le 14 Euh, juillet vendredi bële il y a deux semaines. pour jox pour joxe carte blanche. Modou Diagne Modou Diagne Fada semaine bii passé nii. Hmm. diisoo moo daje jox carte blanche Modou Diagne Fada. donc ñun suñuy instance politique muy ci parti bi comme ci coalition bi nit ñi dañuy réunion fii ci Ndakaaru di def ay communiqué waaye dañuy réunion ci biir gox yi. ñun suñu parti moom dafay dafay dafay dox. wala fu ngeen teg jox Modou Diagne Fada carte blanche. ci diisoo xam nga lu tax dafa nekk koo xam ne du wax. ndax te teeyaayu bakkanam rek du waxee kii euh, nax sol lu ko neex wala intérêt boppam dafa nekk it koo xam ne jaar-jaar politique am may na ko mu mën a def yenn analyse pour jël euh, la bonne décision te seetlu nañ ne fu mu fu ñu ko joxee kàddu bu jëlee décision décision ba dañuy gis ne mooy décision bi gën xam nga euh, le ministre de l' bi fi newoon Kalidou Diallo dama ko dégg un jour bi PDS daanoo en 2012 2013 2014 mu ne xool na présidiumu PDS bi comité directeur ñi fay toog mais s'il y a un homme qui est politique qui est remarqué pour ses analyses politiques pertinentes Modou Diagne Fada la donc Modou Diagne Fada ci politique euh, bu doon ne làmb la rek dañ naan moom peut-être moom mooy le roi des arènes wala bokk na ci les les trois meilleurs lutteurs. d'accord loolu moo tax xalaat la mu doy. waaw mais tey exemple tey est-ce que jàmpul euh, Mansour. Euh, tey LDR yeesal wala coalition diisoo bu ngeen sampoon Modou Diagne da ndax jàmpul pour ngeen mën a lijjanti parrainage. noo jàmpul parce que parrainage organisation la rek li ñu ñuy demandé zéro virgule six pour cent nga xam ne su ma juumalee c'est quarante trois mille ou bien quarante cinq mille maximum électeurs euh, parrain mën nañu ko dajale ak deux mille ci sept régions au moins. mën ngeen ko am mën nañu ko am ak deux mille ci sept régions au moins xamul tax. tey ñun dañoo nekk ci département yëpp nekk ci commune yëpp tey bu soxla woon par exemple mille parrains à Kaolack dans région de Kaolack waa Kaolack waa Nioro ak waa Guinguinéo ñoo ko koy lijjantil Modou Diagne Fada amul problème mu parrainage Modou Diagne Fada amul benn problème technique boo xamante ne si mën na koo tax du participer aux aux élections d' accord mais parrainage bi tey gis nañ ñu bëree bëri nee nañ candidat lañ est-ce que ñi maanaam ñi déclaré ne candidat lañ presque ëpp nañ 40 am nañu ci euh, sañ-sañ ne candidat la candidat laa nag taxut a euh, nekk candidat mais ñoo ñëpp wax ne ku ne na candidat la est-ce que joxuñu dëgg ka ne parrainage bi bu ñu ko tegee ci yoon euh, lu am solo la. parrainage lu am solo la bu ñu ko tegee ci yoon te jàpp naa ne li ko gënoon motiver sax mooy bi ñu jógee ci élection yi ma la doon wax 47 liste ne dañoo bëgg a doon ay député ay Euh, boo xoolee quarante candidats yi déclaré également war nga xam ne parrainage bi lu lu baax la ñun dañ ko bind ci suñuy këyit avant Macky Sall di ko def ci texte Sénégal ñun 2016 bi ñuy defar suñu parti dañ bind ci suñu këyit parrainage avant Macky Sall di di ko di ko wax. wax naa la léegi sax ci bi ñuy démarrer émission bi ne suñu parti ku bëgg doon candidat dafa am fédération yu lay parrainé parce que gis nga mbir Abdou Khader boo koy yootu mhm. sa jaar jaar ak sa tolluwaay dala ko war a may. mais déclarer candidature pour nit ñi xam la ah jóg rek ne man candidat la bind ko sa page Facebook wala defar say poster taf pour nit ñi xam la te yow leer na la ne doo dem candidat parce que amoo caution wu 30 millions amoo 13 députés amoo 120 maires mënoo am 0,6 pour cent du fichier électoral. loolu ay ay caaxaan la donc parrainage forme de filtre la boo xamante ne ci démocratie yi mag yëpp am na ci. donc ñun contrôle ko. waaw contrôler ko mais tey euh, Euh, yéen est-ce que di yéen euh, LDR yeesal am ngeen nag wax dëgg yàlla ab programme ndax am ngeen programme xam nga am parrainage ni ñu koy waxee man ngeen a am parrainage man ngeen a am euh, mën ngeen a am caution Modou Diagne Fada ku Sénégal xam la foo wax Modou Diagne Fada nit ñi nit ñi xam nañ ko mais vrai que Ablaye Wade tax sax ñu bari xam ko mais est-ce que am ngeen programme boo xam ne mën ngeen a soppi réew mi. programme bi xaajuñu xaaruñu sax bay laaj réew mi. parce que ñun lii waraloon sunu parti judd wax naa la ko biir PDS dañ ne nañ réformer programme fondamental bi parce que 74 dañ ko tëggoon gëj nañ ko defar te bëri na lu xewaat ci àdduna bi loo xam ne war nañ ko dugal pour mu méngoog jamono. moo tax bi ñu génnee rek créé suñu parti dañoo suñu programme lañ njëkk tëgg tëgg defar suñuy statut ak suñuy règlement intérieur alors programme bi ñu ngi ko tuddee yeesal Sénégal. Hmm. yeesal senegal dafa am ci pàcc yëpp. est-ce que faisable nag. non c'est faisable. comme tey par exemple boo jëlee la santé. xam nga Modou Diagne Fada dafa ministre de la santé gis na ne couverture maladie universelle bi Macky di def baax na mais couverture ko gën. lan mooy loolu. différence bi mooy couverture maladie maladie moom da ngay dem nga faj nga faj ko feebar booy faj la. boo demee am na garab yoo xam ne comme jënd nga carte bi 3500 yenn garab yi doo ko jënd dañ la koy may mais am na da koy jënd. le président Macky a fait beaucoup d'efforts nag. ci ci couverture maladie maintenant couverture sanitaire dafay def prévention avant maladie bi. kon yéen seen programme. ci santé kon yéen non non seen pro non Mansour seen programme ci santé moo gën programme Macky Sall ci santé voilà. waaw bu jàpp naa ne ñun bu ñu falo ba appliqué ko suñu programme mooy gën programme bu Macky ci santé parce que xamul tax. Mm-hmm. li mu def moom ñun dañ ko jël ba pare ne lu baax la mais dañ ci yokk lu mu deful woon parce que xam-xam du doy alors boo jëlee éducation. si sunu système éducation. mais santé lii rek nga si ngeen si am complexe. non mënu ma la wax lépp li ñu war a def dans la santé dama lay jox yeneen fànn yi aussi parce que sunu programme de santé kese dama lay jox benn mesure phare rek ci CSU bi nga xam ne couverture sanitaire universelle lañ ko tuddee. boo boo jógee foofu dama ne la boo ñëwee ci njàng ak njàngale parce que boo loolu du am solo la ñun dañoo am li ñuy wax COSEF muy conseil euh, euh, supérieur de l'éducation et de la formation conseil wutewul dara ak gouvernement beeg le ministre de l' enseignement moo xam ministre de l' enseignement supérieur la a éducation wala recherche scientifique day nekk benn organe autonome bu nekk fële boo xam ne ay kàngam ci réew mi ci différents domaines nag moo xam doomu daara la moo xam nappkat la moo xam jànguba la ne moo xam feneen la ne ñoom ñoo fay daje pour waxtaan nan la ñuy tëggee sunu njàng dootuñ nangu ñu dem rek jëlal ñu fële benn nit parce que Karl Marx la tudd di di ko jàngal suñuy doom or Seydi Hadji wala Serigne jàngal nañu loo xam ne ci ay jikko wala ci liggéey buñ ko jàngalee suñu doom yi mooy mooy mooy mooy mooy raw su suñu programme la bokk dañuy changer curricula yi d'accord léegi léegi euh, xale yi nga xam ne amatuñu espoir ci réew mi euh, di dem ci gaal gi yéen ndax am ngeen programme pour ndaw ñi léegi bala may ñëw ci point boobu xam nga ministre xam nga Modou Diagne Fada dafa nekkoon ministre de l'environnement bu ñu la waxee programme bi mu am ci environnement. ban ngeen am da ngay da ngay da ngay. ban ngeen ban programme ngeen ci am ci environnement da yéemu xam nga tey fu mu toll nii ñëpp xam nañu avec les changements climatiques. ri la réew mi mais Sénégal àdduna bi dafa jaxasoo ñi war a am comportement yoo xam ne adapté wu ci changement climatique yi mais tamit am benn comportement d'atténuation ba nga xamante ne si li nga xam ne moom la ñu yóbbu ci jaww ji ak ci géej gi di yàq alam bi dañu ko war a dañu ko war a xoolaat. buñ ko mënul dindi carrément it ñu wàññi ko Modou Diagne Fada am na réforme yu profonde yoo xamante ne si bu ñëwee moom lay indi. pour euh, pour loolu solo léegi ndaw ñi. ndaw ñi euh, la programme wala migration clandestine. immigration clandestine waxal ci immigration clandestine bi ak tamit ndax yéen am ngeen programme pour ndaw ñi ndax Modou Diagne Fada ndaw la woon ñu jox koy poste responsable. nga nag léegi nga xam ne Modou Diagne Fada war na mën a yor réew. wax nañ ci santé bi mu yoroon wax ci environnement bi wax ci jeunesse bi alors d'accord ndaw ñi. Euh, Abdou Khadre euh, man migration bi dama bëggoon ñu jël ko ak xel bañ ko jëlee ak xol wala di ko politiquer maanaam ku gi nga ne nga ne nguur gi ñoo liggéeyut moo tax xale yi fippu bëgg a dem Barça way des ci géej gi wala nga nekk ci nguur gi daal di ne ah état bi lépp lu mu waroon def def na ko xale yi ñooy dem déedéet il faut ñu dem ci ak mesure dem ci ak xel lan moo ko waral d'abord xam nga migration dafa mos am ci àdduna bi brassage culturel dafa mos am waxuma la sax entre réew ak réew mais même fii ci biir réew mi migration mu ngi am. exode rural lañ ko tuddee. nit ñi nangu ñoo toog ci àll bi dañuy ñëw Dakar parce que buñ jaayee fi lay jar bayatuñ parce que peut-être suuf si doxatul dee na wala jiwu wi dese naa baax wala amatuñ fas wuñ bayee ñooñu dañuy migrer ci biir réew mi migration clandestine bi ñuy wax nag ñii dañuy génn seen réew jéggi ko jël ay gaal dugg ci dox pour dem yeneen réew alors dañ ci war a taxaw def ci seen xam nga li ko waral dafa bëri. c'est pas parce que nguur gi moo deful li ko war yëpp nguur gi def na ay effort effort dafa am fu muy yem parce que chômage bi tax ñu fiy jógee di dem mais am na France am na États-Unis am na feneen. fii la ah da nga xam taux de chômage France ñaata la ak sunu bos yaakaar rek nga waxee de da xam taux de chômage bi nekk aux États-Unis alors chomage am na fii am na fële jafe-jafe am na fii am na fële. fii la jafe-jafe mais nit ñi dañu jàpp ne bu ñu demee fële ci la ñuy gën a mën a saafara. seen i jafe-jafe seen jafe-jafe. comme tey am na ñoo xam ne ñu ngi jógee Guinée Gambie jàpp nañu senegal lañ gën a mën a saafara seeni i jafe-jafe mais euh, man dama jàpp ni nos dirigeants dañu war a waxtaan au niveau international suñu relation avec les états moo xam relation bilatérale wala multilatérale dañ ci war a waxtaanaat tëggaat ko parce que ñun nag jafe-jafe yi ñu nekkee Abdou Khadre ñoom ñoo ñu ko yóbbee. ñoom waaw. est ce que du suñu dirigeant. ci naka ñoo est ce que du suñu dirigeant ñoo wane taxawaay bi ñu bi ñu war a moo tax maanaam dañu war a waxtaanaat sur loolu c' est le contexte actuel mais boo interroger histoire ñoom dañ njëkk a ñëw di jàpp suñuy maam di jaay jaam di jël suñuy ressources di yóbbu nit ki nag boo jëlee dooleem yóbbu jël. alalam alalam yóbbu dem defaree ko sa réew. gas say tunnel tracer say raay defar say saxaar bay say tool. defar sa defar sa àdduna ba pare moom mi nga xam ne yaa ko ndóolal nga ne ko bul ma fekk si te yow yaa jëkkoon dem fekki ko ñoom fekk si nañ ñu jënd jaam fekk si nañ ñu yóbbu suñuy ressource fekk si nañ ñu wut si xam-xam parce que xam-xam boo dégg ci réew mi rek lu ci bari Égypte la sosoo donc ñoom yàgg nañoo ñëw ci biir Afrique di jël di yóbbu léegi nag ñoom dañuy bañ ñun ñu dem jël indi débat boobu dañ ko war a poser ñoom mënuñu ñu appauvrir ba pare mm-hmm. te bu ñu lebalee sax lu ñu dimbalee ne nañ leen ko fay te ñoom li nga xam ne lépp nañ ñu ko mënuñ ñu koo fay alors donc noo dirigeants dañu war a poser le vrai débat ak ñoom pour ñu xoolaat les relation que nu avons. ok ñoom mënuñ bu ñu bëggee dugg suñu réew dugg ñun bu ñu bëggee dugg seen réew duñ dugg leneen li nag mooy ñu gën a góorgóorlu nag ci organiser également jeunesse bi trouver leen ay emploi gën a parce que formation bi dafa des def nañ ci xaalis bu bëri am na organisme bu bëri yu koy yu koy yu mais dafa des. financement yi non boo financé nit ki te formé woo ko financement bi. yaa ko financement yi solution. non financement yi solution la mais dafa am lu ko jiitu c'est-à-dire la formation gis nga Abdou Khadre yow bu fekkee pare woo benn programme bu ma la joxee 5 millions da koy lekk. da koy lekk mu jeex nga ñëwaat toog di ma xool mais bu fekkee journaliste nga fekk na am nga sa benn organisme bu baax a baax a baax boo préparé ah am matériel yoo bëgg a jënd te amoo ko am journaliste yoo bëgg a recruter te amagoo ko su ma la joxee xaalis di nga xam fi koy dugal pour sa mbir gën a yaatu formation boobu. moom la ñu moom la ñu gën a war a accéléré euh, lijjanti ko ci biir réew mi te jàpp naa ne Modou Diagne Fada bis bu yoree réew mi nekkoon na ministre de la jeunesse hmm. euh, politique yu bëri fii ñu def fii ci jeunesse bi ci moom la déparé financement jeunes yi ci moom la déparé ak FNPJ jàpp naa ne ñun am nañ ci xalaat yoo xam ne bu ñu ko bu ñu ko indee lu bëri dina soppeeku na nag éducation bi ñu bëggal defal jeunes yi en matière de civisme et de citoyenneté parce defuñu ko mais nit ki da koy yar ci ay jikko. bala nga koy jàngal mais Mansour leneen lu sonal réew mi euh, lan la ci Modou Diagne Fada wax maanaam mal gouvernance euh, impunité ay corps de contrôle def seen liggéey épingle ay nit tum du mujj fenn euh, ni ñu yoree alalu réew mi tey xel loolu aussi ndax am ngeen ci taxawaay. Modou Diagne Fada et la LDR Yeesal ñun nous sommes contre tout forme de de de de gouvernance gabégique de mal gouvernance de détournement de gestion nébuleuse. principe la. principe ñun dañu gëm redevabilité maanaam bu ñu la dénkee dangaa war a leeral waaw non seulement da nga war a yor yorin bu rafet bu jub waaye it boo paree dañ dañ ko war a leeral. ba mu leer ñun loolu dañu ko dañu ko dañu ko gëm moo tax it boo xoolee moom fi nga xam ne jaar na fi yëpp ci ay ministère peut-être koo xam ne wujjam politique la bu ko neexee mu jóg rek attaqué ko ku ku sa wujj di sëlam doo set waaye doo dégg mukk ñu ne moom moo moo jël lii wala moo toxal la le léegi euh, ñu léegi tey waxtu wi jeex ci dialogue euh, national bi ñu doon def dialogue national bi ba ñu fa jógee gis nañu ne am na ay projet de loi yoo xam ne yóbbu nañ ko assemblée nationale am ñenn ñoo xam ne rawatina ci euh, société civile bi euh, waa forum civil ñoom dañu gis ne dafa am ay modification ciblée mu mel ni ay projet de loi la yoo xam ne pour bëgg Karim Wade Khalifa Sall bokk ci élection yi yow ban gis-gis nga ci man gisuma ne c'est des modification cible man gisuma gisuma loolu man li ma gis mooy avancée démocratique la ñun dañu gëm dialogue ñun fu ñu mos a nekk rek bu nit ki wootee dialogue fekki nañ ko parce que jàpp nañ ne dialogue moom mooy soppi euh, li fi nekk le statu quo alors euh, CREI yi ñun dañ ko mos a contre parce que juridiction spéciale la c'est pas une juridiction de droit commun li ca nekk yaa ma ko gën a xam maanaam yow miñ tuumaal yaay dem indi wane na yow defoo ko te loolu amul ci benn réew donc dañ ko war a dindi alors euh, bu ñu la jugé ba tëj la amoo fenn foo ko mën a jooyee pour ñu changer ko ci biir réew mi juridiction de second degré dañ ko war a dindi donc dañ ci d' accord modification code électoral bi aussi ñooñu ñu condamné ñun ñëpp nañu fàttaliku ne ñaar ñi ñu condamné yëpp benn juge waxul ne amuñu droit bokk ci élection juge bi prononcé ko maanaam li ñuy wax peine supplémentaire pour wane ne kii kat perd na ay droit am ndax lii mu def benn juge waxu ko mais dañoo modifier code électoral pour tere leen bokk élection waxtaan politique politique la woon waxtaan politique mën na ko mën na ko mën na ko dindiwaat xam nga nit ñi dañuy fàtte ne créé Abdou Diouf ñu ko fi détournement parce que booy xeex détournement li cour des comptes wax wala IGE wax ko wala leneen doy na pour nga kii ko mais donc politique galgal yooyu da ci da ci da ci da ciy am bu ci amee nag est bu ci amee non non non xam nga man gëm naa ne mais est-ce boobu ngeen andi yéen déedéet déedéet duñ koy di dee ko mën na la man gëm naa ne adversité mën na seen mais yéen est-ce que bu ngeen ñëwoon tey da ngeen modifier ay code code ngir faagaagal ay militants comme ni ko ñi ànd ak Macky Sall defee bon xaw man du wax ne dañoo modifier pour faagaagal loolu yow yaa ko wax mais dama ko wax ne la ñun ñun nous sommes des réformateurs xam nga luy réformateur réformateur moo ko mooy koo xam ne bu ñëwee day soppi li fi ne ñun gëm nañ ne système bi fi ne bonul am na lu baax. mais bëri lu bon. mais dafa am loo xam ne baaxul am loo xam ne dafa yées d'accord li bon dañ koy jéem a corriger li yées nag xam kenn mënu ko defar dañ koy dindi sànni. waaw léegi léegi beneen bi beneen question bi Mansour mooy euh, Ousmane Sonko moom nee na euh, dina bokk ci élection présidentielle yi wala élection du am. xam nga Ousmane Sonko man mënuma wax dina bokk. te nee na aussi jàll bi dil la. waaw ma ne xam nga Ousmane wax dina bokkam du bokk loolu ki ko mën a wax mooy li ma la wax léegi un juge moo ko mën a moo ko mën a prononcé. xam nga tant que nag juge prononcé wul loolu Ousmane koo am na droit bokk ay élection waaw leneen di aussi mooy euh, man bu ma doon moom damay bokk ci dialogue bi man. Mhm. su ma doon moom naa position mais su ma doon moom damay bokk ci dialogue bi ma waxtaan. parce que politique moom mooy doxee noonu waxtaan ak nit ki du tax mu wax loola la waxul wala mu def loola loo bëggul mais braqué wu ne doo waxtaan. loolu loolu man jàpp ko ci politique baax lu baax la. parce que politique de la chaise vide la. mais mais blocus bi ñu defoon këram mujj ko dindi ndax àndoon nga ci blocus boobu. man oui. Euh, noo ko man wala ma parti yow ban gis-gis nga ci amoon yéen waa LDR sax. man xam nga man ànd ci wala ñàkk ci ànd. non pas LDR. non LDR yeesal waxu ci. ban gis-gis nga si am yow Mansour Ndiaye. man li ma la bu wax mooy li ministre de l' intérieur wax man mën naa ko dégg en tant que intellectuel et homme politique parce que raison yi mu joxee mooy que moom lañ dénk défense sécurité intérieure bi bu gisee ne am na loo xam ne mën na troubler l'ordre public war na cee anticiper gis na nit jógee jóge béréb Casamance ne dafay def caravane de la liberté fu mu jaar mu ngi woo ndaw ñi bu ñëwee day génne Macky Palais alors mu départ am ay mort xaw ma fan la mort bi jógee du ma situer ay responsabilité du sama rôle mais ci ministre de l'intérieur jaadu na mu arrêté loolu bala muy gën a yàgg. blocus bi du affaire condamné nañ ko tëj nañ ko wala leneen loolu la affaire sécurité la woon réew mi parce que jàpp nañ ne da doon woote fitna. paramètres yi ministre de l'intérieur am apprécié ko ba jàpp ne kii su ma deful blocus wala barricade wu ma këram mën na salfaañu ordre public man aw ma ko. amoo information yooyu. aw ma ko d'accord. jërëjëf euh, Mansour Ndiaye waxtu yi jeex nañu fàttali ne yow yaay porte-parole national bu LDR sal bu président Modou Diagne Fada. Euh, jërëjëf euh, Abdou Khader man maa lay sant di la gërëm ndax yaa ma permettre ma waxtaan ak sénégal yi nga xam ne ñu ngi déglu réew mi FM émission bi nag xaw na gàtt de. jërëjëf jërëjëf euh, Massour Ndiaye mbokk yi moom la ñu invité woon tey seen émission pencum réew mi mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ngeen di sànd ak Abdou Khader Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.